xanaa kon maandu maandu maandu dem na. Mm-hmm. xanaa maandu dem na kon. Mm-hmm. nee na itam waaw nee na maandu dem na maadilul mm-hmm. alxaji abdu aziz bu baax ma yéen la ko yàlla dolli leer amin yaa rabbi boo rombee boo dee dox guddi romb ci lëndëm góor ak jigéen mu beru ci ruq nee na waxal rek ni xam naa dafa am secret bu ñuy waxtaanee bu am solo te bañ ko ko yëg moo tax ñuy deeyoo fee nee na waxal loolu rek waaye oustaz Pape xam nga nit ñi bu ñu rombee góor ak jigéen ci ruq ci lëndëm du ñu wax li àlla jam wax déedéet hmm? seen xel feneen lay nekk feneen lay nekk seen làmmiñ leneen lay wax hmm. mu ni maadilum maandu dem na maandu amatul te yooyu nee na Seydi Hadji Malick mu ngi ma lay limal nee na ba mu demee ba nekkatul ci xoli nit ñi ak seen seen environnement nee na léegi di ko takk bagaasam dem di ko ju baax mhm. waxaya kersa kersa nee na kersa jibril yanoon téeñu na ba yanu ko yóbbu ko kersa amatul oustaz Pape bu jëkk xale bu jigéen bu masaan nara a génn sol lu dang dina xool lu ci mbedd mi ndax kilifaa ngi ñëw wala déet wala koo gis Mm-hmm. fekk nit a ngi traversé ku ko mën a gis du génn taaka ko dem ndax kersa oustaz xale bu jigéen daana def buy génn te sol pantalon mu jël sér muur ci kaw mm-hmm. jàpp ci benn xale mu topp ci moom ba ca garage ba bu demee bay dugg ci oto jël sér ba jox xale bi mu indiwaat ci kër gi ndax kersa mm-hmm. oustaz Pape daan nga mayee jigéen pour nga jox ko jëkkëram të mooy daw fu ne ci dëkk bi nga di ko wëri Mm-hmm. léegi tey buñ demee ba boo mayee sa doom waaw muy tàggoo naan dañ may sàcc ngoon damay dem ànd ak sama jëkkër dañ may sàcc <laughs> waaw xam nga kooku <laughs> sàcc boobu yéeme na ana kersa amatul oustaz da ngay def danga daan gis bu ndox taayee boo dëkkee ku dëkk Sénégal xam nga li ma wax bu nawet bi ñëwee dafay am mm-hmm. ay yoo xam ne dafay taa ndox ba fees del waaw su ko defee benn benn lu tuuti ngay am lu nit mën a jaar jàll. Mhm. yoon woowu boo ko dëgmalee keneen ne ci sa kanam. boo taxaw ba mu jàll yéen ñaar xaju leen ca yoon. Mhm. da doon kilifa di mag ni tëll di dugg seen ab xale au lieu taxaw. day day day day départ dajeeg yow. te su ngeen dajee. Mhm. dina la dóor mbagam ba nga tàbbal sa benn tànk ci biir ndox mi boole ci du la nuyu. Mm. ana kersa te ñàkk kersa gi mi ngi tàmbalee ci xale yi ak ci jigéen ñi Siraaji Malik nee na Jibril jël na euh, mbëggeel mhm. jël na barke jël na yërmande mhm. jël na maandu jël na euh, euh, kersa waaw yumnun wa xubbun wa raxmun maadilun wa xayaa sabrun ak muñ muñ nee na muñ jëlaale na ko kenn muñatul ni ñi si jàmbat lañ dëkk mhm. nit ñi ci jàmbat lañu dëkk gis nga boo demee Sénégal am na ay émission ci rajo yi ñu tuddee wax sa xalaat. doo wax sa xalaat kay da nga war a wax luy jëriñ nit ñi waaye wax sa xalaat boo xam ne da ngay tifaar saa ngay ndey loolu koy wax sa naqar la. wallaay moom la koy waaw mhm. mu ne muñ amatul te yonent bi nee na as-sabru inda sadmatil ula nee muñ ba mu ne rës la. Mhm. Mhm. muñ. ba mu nee rës la te muñ amatul nee na nee na mu jibril yóbbu na muñ mhm. ah tabarakallahu eh, eh, yumnun wa xubbun wa raxmun wa wa xayaa sabrun wa zuhdun dëddu àdduna xam nga dëddu àdduna amul na xataab nee na waaw amul ay moyen sër dëddu duñu ko nangu waaw ku amul ay moyens si dëddu duñu ko nangu ndax ñaara am ki dëddu àdduna ak ki àdduna dëddu ki mm-hmm. dëddu àdduna mooy ki lépp yomb mm-hmm. mu wan ko gannaaw dëgmal yàlla kooko dëdd àdduna waaye ki tëj ci côté bu nekk lépp jafe mu far ànd ak yàlla àdduna ko dëddu dëddu àdduna amatul mm. ndax dëddu goo xam ne nii yaa ngi ci biir tëju ni yaa ngi jaamu yàlla waaye werante wi ci biti bu ñu génnee mën nga leen a àtte kon da ngaa nekkoon ci biir tëju rek waaye nekkoo ci biir yaa ngi ci biti mm-hmm. mu ni tabe Jibril jël na ko euh, Pape bala may sori maa ngi nuyu ambassadeur bi ndax moom kat mooy bu ñu booleeg borom bu neexee bu ko neexee yónnee léegi ñu arrêté émission. waaw ko jox ñoo loxo. na naa ko nuyu ñaari loxo muy tabarakallahu eh, eh, sunu ambassadeur bële di Mansour mm-hmm. eh, Mansour Iliman Kan ñoo ngi koy nuyu bu baax nuyu mm-hmm. sax consul bi nekk fi muy El Hadj Ndaw ñu yal yàlla defal ñëpp jàmm waaw amin amin yaa rab ah, oustaz Pape Mboup tamit ah, mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax de ko ziar voilà tabe dem tabe tabe gis nga oustaz ab piir waaw loxoom day silmaxa loxo du gis ni li ma la bëgg wax mooy tab boo xam ne say bokk rek ak say xarit ngay tànn may tabe woo da bañ ko la xas hmm. tab piir loxo ba day silmaxa day tàllal di jox bay jox ñu mu waaye tab boo xam ne day tànn ay mbokkam ay xaritam ay am gi jàmmam gi leen jox aw xas lay daw waaye tabewul ku tabe dangay yemale ki nga bokkal ak ki nga bokkalu moom la euh, moom la mag ñi di nettali ci xaatimu taa yi moom nga xam ne suñu maatur ñu koy tudd ci ay woyam alaaji Malik cité na ko ñëpp cité nañ ko ci tabe mhm. tabe lool xaatim mbooleem ci misaalu ku tabe jàng ngeen ko sax yéen ñëpp xaatim bu ñu ne ne rek jàppal na yaa gën a tabe ci àddina xaatim nag génn eh, di doxantu eh, war aw fasam wu jigéen doom ji topp ci doomu fas wi ak ab jaamu mm-hmm. benn waaye dab leen di ko laaj laajte ni ko ko waaju baax man de dama doon laajte xaatimu tay yi mu ne ko loo koy doyee mu ni man kat damaa am soxla soxla su rëy te man dañu ma wax ni kooku soxla boo ko wax dina la ko fajal ma doon ko laaj mhm. mu ne ko xàmmee nga ko mu ne ko déedéet mu ko man mii ngay laaj may maay may xaati mhm. mu ne ko waaye sëñ bi teg maa teg ma koo wan rek mu ne ko man mii may xaatim lan la woon mhm. da am soxla mu ne ko waaw ko nag fi ne nii moom yoruma sax euh, xaalis bu bari waaye euh, dama ne ci eh, damay doxantu daal di génne mbuusu xaalis moo xam ne bu ñu ko doon xayma jamono jamono ji mën naa ne mat na cent millions ne ko lii laa doon doxam doxantuwaale may naa la ko daal di wàcc fas mu waroon ne ko fas it may naa la ko da muy daal di dem di ñibbi waaw jaam bi moom xol baa nga ca jeex tàkk ba mu jàpp ca mol wa doomu fas bi ma nga ca jàpp di xëccoog moom pour bañ mu topp yaay jëm di diir diir di bëreeg fas bi di bëreeg mol wi di bëreeg mol wi ba ta xaatim gestu rek seen ko ni waaw daal di ayu ni ko eh fas nga xam ni jaam bee koy xëcc pour bañ mu topp ndey ji boole naa ko moom jaam bi may la boole leen ñoom ñëpp yóbbu tab dañu koy misaal ci xaati bi waaye tab boo xam ne say bokk ngay tànn di leen jox ak say xarit nee nañu tabiwuloo da dangay dangay dangay da ngay da ngay bañ ku la waaw léegi nag euh, ñaara ci des juróom-ñett ngoog ñaar yi nag li yonent bi waxoon ni bàyyi naa ko fi te bu ngeen ci ngoyee du ngeen réer mhm. benn ba bokk na ci la jibril jël si muy alquran ginnaaw tabe nee na yumnun wa xubbun wa raxmun wa adlun wa xayaa sabrun wa zuhdun saxal quraanu bi salami al quran siraaji maalik nee na dem na doonte wàcce nga kaamil ci suba di ñaanal say say parents yonent bi nee na dinañ dem ba alquran mbind mee fi des ak këyit yi mais dëgg dëgg xa alquran du fi desiti alquran siraaji maalik nee na jibril jël na ko c'est-à-dire jël na barke ba jël na valeur yi dina la jox misal bo demé Sénégal. waaw. amna fa groupe yo xamni groupe alxuraan lañ leen di tuddé dañuy yor sen kamil def ko sen sac am grand place bu ñuy tok ku ci nek ya nga yor sa radio bu ndaw di déglu hmm té tàgge yu reuy yi la ñuy tànn nag bi ñu tudd président de la république ak jabaram ak itamit neew bi faato ca almadi wala mamel tàgge yooyu lañuy tan bu ñu né ñu ngi leen di Demba Ñang faatu na ca mamel tudd ci président tudd ñëpp ñu daal di mhm. ñokket daal di jël oto gàddu seen kaamel dem ca dëj ba mhm. bu ñu àggee daldi di àbb basang lal daal toog kenn ñoom daal di jóg daal ku baax dem na ku bëggan alxuraan dem na ñun ñii ñoo ko daan defal ci secret ku koy weddi mhm. kañu rob ana ku koy weddi kañu rob koy weddi bu ñu waxee ba convaincre nit ñi tàmbali wàccee bu ñuy jàng kenn kaa ngi dugg ci biir néeg yi ak ci tànt bi di di laajal kaamil bi bu ñu paree déey ki faatu faatule ni ko kaamil bi pare na mu daal di lem cent mille wala cinquante mille jox leen ñu booleeg la ñu laaj daal di wuti beneen déj oh. jooju alxuraan moom jooju alxuraan mooy alxuraan déedéet kon alxuraan dem na alaaji Maalik li wax am na walaay dëgg la hmm? Hmm, hmm. te ma nga fa ne gàññ gàññaaral bis salami li muy tekki mooy l'islam pur et dur l'islam bu wér bu set ci daaj Malick nee na Jibril yóbbu na ko ah. bu dee tanti conférence yi moom ngay wax ñi mooy l'islam hmm. bu dee tanti conférence yi ñu organiser addina bi yëpp di organiser tant hmm. boo ko jeexee ba ca biir du li conférencier bi wax du darsi bu muy joxe enveloppe ya ñuy indi ak autorité yi koy tuddee ak toilette ya ñuy toilette du wanu Mhm. Lalu, lekk na alquran ba ba lislaam amatu ca wa eh, conférence ba ba lislaam amatu ci wàll bu dee gàmmo yi mhm. enveloppe ya ñuy joxe sanse ba ñuy sanse mhm. jaagar jaagar ba ñuy jaagar jaagar di romb lamp yi di saraxe lekk na la ca lislaam moomoon waaw noo gisee boroom xam-xam bu yor micro di jàngale ci wàllu yàlla yor micro taxaw ci digg tànt bu leer nañ jigéen du jongama loolu jóge te àll ba jàkkaarloog yow di waaxu nga di ko xool ba ak si ni la jàpp dara wan la gannaaw di dem nga di ko xool ba mu toogaat loolu noo ko gisee. doy na waar. Ah? Hmm? bu dee loolu rek la fi lislaam dese. waaw la lislaam am lu tuutee tuuti la. benn mbokk nettali na ma oustaz boo xam dañ ko sant benn conférence. waaw conférence ba te ñañu ko tudde ñañu ko bàyyeele. te président la tàmbalee benn ministre desul nañu hmm. ko yaayee rek ca ca ca soxna président lañu ko tàmbalee benn autorité desul hmm. ba nit ñi commencé ñëw autorité yi ñuy ramasser enveloppe yi di ramasser enveloppe di ramasser enveloppe yi ba nga xam ne nii daanaka conférence bi mu waroon a commencé 15 heures dem nañu ba timis di bëgg a jot. waaw. bi nee na ci la ma président bi déy ni ma waxal ñaari baat te te te ñaan ñu tëj ko ñu kii ñu ñu ñu ñu ñu tas conférence bi. nena man ko conférence ni ko tassé tase te commencé mu ko man la mu ko sa way tassal conférence bi. boobu conférence est ce que jàngalee taxone ñu jop est ce que yee nit ñi daaji malik nena fukk yi nak bi Jibril ñëwee jël ko yobbu ca la jikko ju rafet takki bagasam dem. waaye nak jikko yu rafet jikko yu rafet yooyu takki bagasam dem bayi fi jikko yu jikko yu ñaaw. way jur yi am part de responsabilité biti bi biti bi part de responsabilité mais responsabilité bi biti bi am parce que biti bi kenn santu leen ñu yar doomi mhm. way jur yi lañu sant ñu yar seeni doom moo point bu bi day delluwaat ci way jur yi mhm. way jur yi di jàngal sa doom loo xam ne yow doo ko jëfe mhm. di jàngal sa doom loo xam ni doo ko jëfe li shaa'ir bi wax wa xayru taqiyin ya'muru naasa bi tuqa tabibun yudaawi naasa wa huwa alim waajur wi nga xam ne munta yar doomam parce que la muy def loo doomam moom maîtriser wu ko munu ko ndax du ko def jubul te woykat bi def ne wa xayru taqiyin yamuru naasa bi tuqaa tabibun yudaawi naasa wa huwa alilu nee na wa xayru taqiyin koo xam ne ragaloo yàlla ba pare yamuru naasa bi tuqaa bëgg a jàngal nit ñi ragal yàlla nee na kooku xam nga nu mel tabibun yudaawi naasa wa huwa alilu mooy docteur buy consulté malade yi pour faj leen te moo leen gën a feebar léegi ñetti aaya daf cee ñëw boo xam ne moo dénoncé waajur yi bi ci njëkk mooy ata amuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum Hmm? wa antum tatluna alkitab afala taqilun wajuri nañu deg loolu waaw yow ndaxay da ngay jangal say dom ndax da ngay jangal sa njaboot ak mbax ba pare fatte sa hmm. bop xanaa kon xelluwoo way jur nu muy yare domam te te yarul garab bu lu sutul du la mën may ker ni de ci ci si ci neena birig bo gis mu jub rek kay ga mo norul birig boo gis mu jub. moolu kaay ga hmm. moo norul. Hmm? Hmm. beneen aaya bi mooy ci yontu yàlla Shuayb li mu wax njabootam. wa maa uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu duma waroo yéen mukk di juuyoo yéen ci lu ma leen tere ba pare ngeen wan ko gannaaw gis ma jëm ca du am mukk way jur wi tere doomam loo xam ni ma nga moo tax li seen Cheikh doon nekk li nee na xale bi bàyyi bi def ko ni bàyyil fen parce que bi may toll ni yow daaw ma fen xale bi ne ko kon ko tàmbali. Hmm. daaw ma fen. waaw. Hmm. bàyyil fen parce que bi may toll ni yow daaw ma fen. xale bi ne ko kon hmm. kañ ko tàmbali. mu ni mu ni moom Shuayb yonte yàlla Shuayb wa maa uridu an uxaalifakum ilaa maa anhaakum anhu du ngeen ma gis mukk ma leen mbir ba ngeen wan gannaaw mbir ma dajee man ma jëm ca loolu wëj bu nekk war nga ci bàyyi xel hmm. ñetteelu aaya bi mooy yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun hmm. yéen ñi nga xam ni gëm ngeen lu tax ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko def rëy na garaaw na dangereux na te yàlla ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko def waaw way jur nag bu fekkee maîtriser wul ñetti aay yi nan lay yare doomam oustaz ndax xam nga ni way kër gu nekk boroom kër yi dinañu toog lu mat semaine du ñu gisanteeg seen doom te famille bi pour ñu daje pour concerto mën a waxtaan lu leen di defar gën a dolli cofeel seen biir ñoom mhm. amul bu ñu taajee reer mbaa añ daal ñëpp dañu génn daje ci cëtt bi waaye bu ñu lekkee ba pare kenn ku nekk daal di duggaat sa biir néeg yor sa téléphone loolu baaxul. waaw dafa am benn waajur bu wax ni ma man samay doom sant naa yàlla ndax bu ñu génn dem fenn bu ñu reeree dugg nañ seen nekk tëdd ma ne ko est-ce que ma ne ko dañoo tëjuwaale portable. Mhm. mu ne ma waaw ma ne ko bu dee am na crédit am connexion lañu ñu nekk ca biir nii ba yenn saa mooy gën a bon baar bu fuuf. Mhm. waaw te bu fekkee tàggatoo leen yar leen bàyyi leen ak téléphone bu dugg ak moom ci biir néeg lañu fay def. moo gën a bon joueur pour nous parce que benn lañu rek buur bi tabaraka wa taala wax ni qu anfusakum wa ahlikum naara xanaa aaya bu yaatu la bu bu yàgg boo yàgg dégg fegal leen mhm. seen bopp mhm. fegal seeni doom safara mhm. xam nga léegi safara bi yàllay wax mooy safara bële muy àllaaxira waaye nit ñi dañ koo jaawale sawaraw àdduna wii la ñu fexe ba seen doom du lakk jàngal nga sa doom na muy taale gaz bi ba mën naa ko mhm. set almet teg ci wala briquet te du lakk jàngal nga ko waaw jàngal nga ko nu muy utiliser bi ba du lakk mhm. waaye jàngaloo ko fan lay jaar ba saware wala bu ëllëgee du ca lakk te def ni qu anfusakum wa ahlikum naara mhm. kon nag yàqute googu yépp dafay delluwaat ci loxo doomu aadama li yàlla wax ni zahara al fasaadu fil barri wal baxri bi ma kasabat ay dinnaas nee na monaku caay-caay ak kaccoor njadri gëndale na àddina bi te du kenn nit ñi dong nit ñi dong léegi nag eh, tabarakallahu ma indi benn eh, maa ngi dem rek de heure bi boo demee sax jeex na. non baax na baax na oustaz baax na. ba nga dem ba ci kanam kay damay li ci wàllu jikko yu rafet yooyu. te yonent yonent bi koy jàngalee. Mhm. ëppale ko ñëpp. Mhm. gënle ko ñëpp. xam nga yonent bi Sayyidatuna Aïcha daf koo laaj ni ko. Euh, yaa ngi yonent yàlla Yusufa ku gën a góor mhm. xam nga ñun ñëpp dañuy dégg ñu ne yonent yàlla Yusufa ku góor yu la. ku rafet yéen ci dàq doo koy dégg. naa koy dégg waaw nataal yi ñuy wane sax da ngay gis mu nekk benn xale bu góor bu jantal sol benn euh, benn genre euh, ak benn gilet sol ay dàll euh, dàll nu yu am ay der ba ci yeel yi ñu ne moom mooy yontu yàlla yusufa nataalkat yi dañ koy def bi ko bi ko Aïcha laajee ni ko yàlla yusufa kan moo gën a góor yu yonent bi ci modestie ak simplicité daal di sëgg ba yàgg siggi ni ko huwa ahsanu minni xalkan waa ana ahsanu minhu xuluqan mm-hmm. ne ko a daq bind waaye maa ko dàq mm-hmm. jikko mm-hmm. waaye nag boroom xamam yi ko sopp te di ko topp te xam ko dëgg-dëgg imaamul busiri moo jëkk a addu Serigne Touba addu Seydi Hadji Malick addu Cheikh Cheikh Abi addu ci wax ni yonent bi dafa nekk nitu mesure dafay nitu mesure mesure te nitu mesure boo ko mayee fukk juróom lay jël waaye moo dàq Yuusufa bind moo ko dàq jikko ñu ni imaamul busri bindal mu ni faaqan nabiyiina fi xalqin wa fi xuluqin walam yudaanuhu fi ilmin wala karami mu ni faaqan nabiyiina yemul ci yusufa rek yonent yëpp moo leen kawe eh, faaqan nabiyiina fi walam yudaanuhu fi ilmin wala karami nee na tiim na leen ñoom ñëpp ci jikkoom fii xalqin wa fii xuluqin faaqa nabiyyiina fii xalqin tiim na yonent yépp ci bind wa fii xuluqin ak jikko walam yu daanuhu te jegewuñu ko fii ilmin ci xam-xam wala karami wala tedd kon dafay nekk nitu mesure waaye moo dàq Yuusufa bind moo ko dàq jikko ñu ne Sëriñ Tuuba mu ni waaw waaw moo dàq Yuusufa bind dàq ko jikko ñu ne ko xaadim bindal mu ne wa huwa akmalul waraa خلقا وخلقا زهرا والمثل قد لم يرى ولا يرى في السيم mu ni waxoo moom yonent bii ñuy tëkkale yusufa ak malul wara moo gën a mat mbindeef yi yépp xalqan ci bind wa xuluqan zahara ak jikko ju feeñ ba ni fang wal mislu te ku mel ni moom xattu ba faw ba mukk lam yura kenn du ko gis wala yura sa chiyam yi te kenn du ko gis ku mel ni moom ci wàllu jikko ju rafet si Seydi Ji Malick ñu ne ko yow la wax mu ne waaw waaw li sama frère bi ci bawol wax mu am dafay nitu mesure waaye moo dàq Yusufa bind moo ko dàq jikko ñu ne Seydi Ji Malick bindal mhm. mu ne wakaana ashjaa asxan naasi axsanahum xalqan wa xulqan wa xayral xisbi wal umami mu ne yonent bii ngeen de wax di ko tëkkale Yusufa wakaana nekkoon na ashjaa gën jàmbaar jàmbaare asxan gën a tebe ci nit ñëpp axsanahum dàq leen xalqan bind wa xuluqan ak jikko wa xayral xisbi wal umami te loolu dem na ba may ko gàngooram moo gën gàngoor yëpp xeetam moo gën xeet yëpp mu ni seexna seex saxdu abi mu ni e, lu tee yonent bi du gën yuusufa dàq ko ñu ne ko bindal من هو المراد من جميع الخلق هو المكرم بعز السبق من يننت بيغي ندي تكل يوسف هو المراد موم يننت بي موي نام نام من جميع الخلق كي مبولم نيت ني نيت غي ام غي ام سبب بي اك نام نام سونو بوروم بغ بيند يننت بي موتاخ مو بيندالي لين هو المراد موي نام نام من جميع الخلق تي مبولم بيند في هو المكرم تي موم لا نيو تيرالي بعز السبق ترى غي جيتول مو جيتو نيب fekk avant muy wax loolu monsieur Sestad bu am na abyaat yu ko jutu yoo xam ne aaya alquran bi moo ko inspiré xam nga yàlla dafa wax ni awalam yara alladina kafaru anna samawati wal ard kaanata ratqan fa fataxnaahuma yàlla daf ni ñi wedde xamuñu ne ak suuf benn dànk la woon maa ko xàppati awalam yara alladina kafaru ndax ñi wedde xamuñu ni anna samawati wal ard asamaan ak suuf kaanata kan benn dànk la woon fa fataxnaahuma ma xappati ko su dee Cheikh na Cheikh Saadu Abini innal muraada min ijaadil xalqi ijaadu ahmada li fatqi ratqi mu ne innal muraada naka namm namm min ijaadil xalqi ci am gi yàlla amal mbindee fi xam nga lu ko waral mu ne ijaadu ahmada amal gi mu nam amal yeneen bi te mu wéet moo tax mu bindaa lenu ci biir nuy ay altoppe ijaadu ahmada bindu yonent bi dong moo tax yàlla programme bindaale nu ngir lan li fàtt ratti ngir xappati dank boobu awalam yara alladina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma jikko yooyu nga xam ne nag moom mooy mooy nit bu jikko ja demee mu dem dara ki nga xam ne moo koy jàngale mooy professeur bi gën a mag nag ci jikko ju rafet moo tax ba ñu laajee Aïcha ni jikko yonent bi lañ bëggoon nga faram fàcceel ñu mu ne leen baat bu gàtt laa ciy wax xuluquhul quraan jikko bu ñu tàgg ci biir ak quraan rek nawe ko kenn ku mu mën a doon rek jikko jooju yonent bi jël na ba ca gën a kawe te si daaji maari ko min kulli wasfin xamidin haza afaala tafdilin rajaul baraya yow musdahil kon tabarakallahu jikko yi safaanoo na way jur yëpp responsable lañ ci ci wàllu yar waaye itam biti responsable lañ ci waaye biti bi nag seen responsabilité rëyul ndax santu ñu leen ñu yar doomi jàmm dafa am benn benn évétement bu amoon mm-hmm. dafa am ku ñoo Abdullah ibnu Xabab la bu ñu naw ngëmam Abdullah ibnu Xabab mm-hmm. dafa am délégation boo xam ne ay jullit la ñëw ci moom mm-hmm. ni ko loo xam ci abu Aboubacar Saddeex mu ne tedd na yiw na ñu ne ko loo xam ci Umar ibn Xattaab mu ne tedd na yiw na ñu ne ko loo xam ci Ali ibn Abi Talib mu ne tedd na yiw na ñu ne ko loo xam ci Usmaan ibn Affaan mu ne tedd na yiw na ñooña ni ko naafeq nga mun leen lu ma def naafeq ñu ne ko da nga cee war na farak kenn mhm. mun leen waaw yàlla wax ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy leen ci buumu yàlla gi yéen ñëpp bu leen teqali ko ti bi wax ne asxaabi kan nujuumi bi ay day ayihim day muhtadaytum sama saaba yi ay bidéew lañu ku ngeen ci àndal roy ko jub ngeen ni mën a faral kenn dégluwuñu ko dañu ko daal di mhm. mënute yóbbu ko ba ca dex ga moom Abdullah ibn Xabaab ñu rendee ko ni ñuy rendee xaru tabaski mhm. te ko def ay jullit lañu ñoo bokk pas-pas bokk ngëm ba ñu ko defee ba noppi mhm. dem di seeti seen benn collaborateur seen benn partenaire boo xam ne chrétien la dañuy jëflante ci wàllu commerce ñu jëm ca moom ba ñu demee ba jub ko ndeke chrétien bi yëg na li ñu defante ci seen biir ñoom jullit yi da leen dañu ko jub rek mu ne leen bu leen agsi ndax ku manewul ki nga bokk lépp keneen koo ne mane nga ak moom waxoo dëgg te li ngeen def ñaaw na waaye dinaa leen nekk la xadis boo xam ni Isa mi ma yaakaar waxu ko Moussa waxu ko seen yonent Mouhamed moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam leen seen yonent Mouhamed nee na bu ngeen bëggantewul yërëmante suturaalante dimbalante yàlla dina wàcce ñetti nattu mhm. nattu bu njëkk bi mooy taw dootu wàcc ni mu daan wàcc bu nawet jotee taw bi day wàcc ci ñoo xam ne soxla wuñu ndox nangu seeni kër ñu tumuranke ña soxla ndox di bay taw du fa ñëw seenu jur de seen bay yàqu mhm. loolooy nattu bu njëkk bi nattum ñaareel bi mhm. mooy boroom yërmande du gouverner ku ngeen tànn ba fal ko ak lu ngeen ca mën a daj bu xasee ba toog ci siège bi yonent bi nee na xeet bu bon buur bu bon la leen yàlla jox lu mu mhm. baax baax ak lu ngeen ko tànn tànn tànn teg ko bu toogee yàlla soppi ko ndax xeet bu bon buur bu bon la leen yàlla jox mhm. loolu boo xoolee cosaanu mbir li cosaan la tàmbaliwul ca buur ba buur ba baax na mooy mbiroom lañ ko xamee waaye comme mhm. xeet bu bon la jiite yàlla day mu jiwal bëti xol ba mu dëppoog ñoom dama ko daan wax ci Sénégal man leen Sénégal gii bu ñu demoon ba Arabie Saoudite buuru Arabie Saoudite nga xam ni mokkal na alquran kaamil bi ñu indi ko ne ko gouverneur Sénégal. du mhm. réussir. bu toogee yàlla dina ko nattee ju koy kàccoor ju mel ni waa réew ma. bu ñu ñëwoon ba fii les états jël mhm. président bi gën a qualifié ci États-Unis yóbbu ko ca Sénégal ak ay moyens yu dul jeex ni ko gouverneur Sénégal du réussir. ndax koy dëkk ba dina ko yàq ba moyens mu amoon dootu amati dara. Mhm. yonent bi waxoon na ni su ngeen yërëmantewul dimbalentewuleen suturaalante wu leen yéeneente wu leen jàmm yàlla dina wàcc fexe ba boroom yërmande du gouverner nattu ñetteel bi nag nee na wërsëg day yomb ku nay jafe ku tabe. yomb nay. jafe ku tabe wërsëg. day mhm. yomb ku nay jafe ku tabe loolu yëpp noo koy dund. Mhm. loolu yëpp na da koy day revenir delluwaat ci jikko yu yàqu yi. gis nga bu fekkonte ni jikko yi rafet na nit ñi yéeneente jàmm mhm. nit ñi bëggante la yéeneente bi wax ni yéeneel nit ñi li nga sa bopp mhm. xam nga ni kii ci ndox mi nangu këram ndox mi fees dell këram mhm. mu xuloog dëkkandoom boo xam ne xuloo nañu ñaari at yoo xam ne duñ tuddante ndox mi nangu këram ba fees dell muy muy tuxu waaw di dem ci beneen logement roñ ay bagaasam def ci camion ba mu jeex bu mhm. bàyyi ba guddi mu ñëw jël jël pikk ba timiir ba fu féeteeg dëkkandoo ba ndox ma nekkoon ci këram yëpp wàlli ko dem foofa mu daal ne tuxutale bu soobee yàlla benn lay doon kooku ndax baax na jikko déedéet déedéet jàmm bi amul dimbalente bi amul suturaalante bi amul kenn ku ci nekk yaa ngi xool noo mën a xawee sa sutura morom waaw li Seydi mari waxoon ni yéen a ngi jëm ci jamono boo xam ne na ngeen bari ñett na ngeen bari istighfar ndax bàkkaar yi dina gëndaloo ba loo jàmbaare jàmbaare jàmbaare di nga ci surux danañ la def loo bàkkaar mhm. kon nag istighfar rek ci man dara na ngeen di bari lu ngeen di julli ci yonent bi parce que lëndamaayu jamonoy tax leeru yonent bi rek ci man dara na ngeen di bari lu ngeen di jëfandikoo yaa latif ndax yàlla ñeewante leen suturaal leen suturaal leen ndax fu benn gor téeméeri say say ko pour xaw sutra kon na ngeen bari istighfar bari salatu ala nabi baril tamit di wax ya latif ndax yalla ñewante len te ba leen yeur neena yalla kenn du ko ñaan yërmande ñewante nga koy ñaan ndax yalla boko yagge ñaan yu insisté di ko yàgg ñaan yërmande mm-hmm. mu yërmande xajul ci aduna da lay yobbu fa yërmande xaj waaw waaw nee na ko ñaan mag ñemewuñu hmm. di zikkar yaa raxmaan ak yaa raxiimu duñ ko zikkar waaw ndax comme baatu yërmande ba da cee feeñ te nee nañu yërmande yàlla xajul àdduna boo ko ko yàggee ñaan mu yóbbu la fa yërmande xaj moo tax nee nañu ñoom dañuy hmm. ñaan ñeewante rek yàlla ñeewante leen yàlla la ñuy liggéey hmm. ah oustaz maa ngi maa ngi maa ngi guddal te non baax na baax na de tabarakallahu moom daal ah, ah li wax barki démb rek ci rajo rajo daara waaw waaw bu defee ñun moom alaaji ma jama jóob ben taalibe benn doomu ndeyu seigne seigne Mansour la dafa naa di koy deg senegal ku mënoon na wax wolof la wolof yu am solo mhm. alaaji ma jama doomu ndeyu seigne Mansour la mo dan wax nan alaaji malik ma baare ndax seigne Mansour ni mi no bok ben ndey mu gën ma bay hmm di ko rang man mu di ma yónni mhm. mu ne alaaji malik ma baare ndax maa mom no bok ndey kon buma gëné ba di ma yónni moom ñu di ko rang alaaji Malick ma neena moma sax waaw waaw waaw ma jama nak seigne Mansour Hmm. xalam dal di genn rek sal bi daal ne tey damay lu kamil waye nak soxluuma ben këyit ay kanfuure la soxla ñi mokal neena ma ngi tok ci bir mbolo mi dama bu ma waxe ñepp daanu waye alcorane mom hmm. bi sëñ Mansour ne kanfuure la soxla dañuy wacce kamil neena may lox neena na Mansour dal ni ana ana Guèye Mamadou gey Khalil mu ni ma ngi ni mu ni ko taril mansour surtu bàqara ana Alioune hmm. Kane desan ñoom ñëpp gaañu ana Alioune Kane mu ni ma ngi ni mu ko taril ma Ali Imran Mhm. ana alaaji fara sow mu ne maa ngi di ko taril ma suratu surat nisaa neena may lox rek mu ne jama neena ma xuddi xol ko mun ma taril ma fàllaxi naas neena na ma ne ko si Malick ya bax waaye <laughs> waaye mhm. boo ko joxee euh, mhm. la man ah day xawa yomb ci mom moo ngi len di ñu ngi len di jéglu nag tabarakallah ah ci euh, bu wax di dëngee niveau bi mo tollu non bu wax di jàddee tamit waxon na sama bop may commencé. yéen ñi ñuy déglu kenn rawu leen dafa fekk ni la ah gan bu ñëwé rek di gëna wax kan nga ko kay wax waye lamuy wax ah ko gëna xam kon tabarakallah ah, ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ah. mbokk yi kon ñu bind bango ñu waat di sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax moom mi ñu defal xéewul gu tol nii indil ñu tey ci gudd àjjuma gi suñu soppee oustaz euh, Massyla Kane ku ko dégg xam ni fa mu nampe daara leer la ndaxte jamono amoon na démb ku wax ñu xam kala jàngal ku wax ñu xam fa nga nampe wante oustaz yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla suñu borom subhaanahu wa taala na ko jox ko yu tedd yëpp mbindil xeetu doomu aadama yëpp pour defar leen bi fi yonent bi jege junni at ci ginnaawam yu teg suñu maam Seex Alaaji Malick si doog gane àdduna te maam Maodo bi mu ñëwee moom baax na sëñ Babacar si baax na Cheikh Sidi Ahmed si baax na Cheikh Mouhamadul Habib si baax na albal xawmi Cheikh Mouhamadul Mansour baax sëriñ bi baax alaaj Ibrahima si baax njabootu sëriñ Babacar si gi yëpp baax te jikko yi yëkk ci nañ koy yóbbu mhm. te dafa mel ni sa maam Seydou Hadj Malick ci baaxam googu sax demoon na ba wax ni euh, dañuy wax ni ñeent fi gën mhm. wante bu ëllëgee dinaa taxaw seen wet jikko yooyu dem na mhm. jikko yooyu dem na wante ndax am na ci sangu jikko boo xam ne des na fi ba tey boo xam ne ku ca taxaw tepp-tepp yooyu di nga ci for ba baax tep tepp jikko yi bi jikko yi demee li fi des ndax am na benn ndax am na sangu jikko bu ñu bu ñu mën a téye tey ba mën a rëcc waaw eh, eh, tabarakallahu hmm. eh, yonent bi dafa am lu mu cité woon ne mooy sangu jikko yi muy alxilmu mu nu ko bëggee firi jamono bi man nañ ko firee neex deret ndax lewet lañ koy firee moom mm-hmm. nee na mooy sangu jikko yi xam nga boo rëyul iñaanoo sa mbir du taxaw loo bëgg a lijjanti lijjanti ko te yàlla def ne uddu ila mm-hmm. sabili rabbika bil xikmati wal mawidati al xasana su fekkee amuloo sagesse lewetoo neexuloo mm-hmm. deret doo mën a jàllale message doo mën a jëflante nit ñi boobu rek mooy buntu bi nga xam ne man nga cee joggi ba delloo siwaat lu baree baree bari lu yàqu woon ndax yi dem éléments yi dem dafa baree bari bari goo xam ni. Mhm. ne bu ci nekk rek fa mu nekkoon boo bu fa jógee vide la fay bàyyi. Mhm. kon su ko defee jamono yii nu toll. waaw ah, ndax da ngay dégg wolof di wax ni eh, kuy dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon. Mhm. ma Serigne Cheikh nee na la plupart kuy dem ba xamatoo foo jëm doo xam fi nga jóge woon. mu ni mu ni. nee na nee na kuy dem ba ba xamatoo foo jëm. waaw lépp dootoo xam fi nga jóge woon. réer nga. waaw nee na loolu mooy tagga témbe wala gëlëm gëlëmte. Hmm. waaye su ko defee lii boroom xam-xam bi wax ne. al awdatu ila al xaqi xayrun min at tamada ila al batili mooy dellu si dellu si euh, rejoindre dëgg. moo gën nga hmm. féeteerul ci neen rek di dem. kon tabaarakallahu yonent bi moom lewet la waxoon ne moo sangu jikko yi. Mhm. kon lewet la boo xam ne boo ci dëggee sa tànk tabarakallah man ngaa dem waaye oustaz maa ngi jégalu parce que bala ma doon yëkkati kàddu waroon naa wax ni ci turu xalif général de Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour waaw ndax comme moonu coiffé moonu moonu lien mhm. euh, te ku ñu xamul danaan waa Tiwaawan waaw te jiite war nañoo war nañoo wax ci wax ni ci turam lañuy lañuy la ñuy wax mhm. ci ndigalimit lañuy la ñuy wax kon maa ngi jéggalu eh, njuumte loolu ndax eh, te njëlbeen nga waral doon waaye yonent bi nee na booy lekk na nga wax bismillahi rahmaani rahim soo ko fàttee nag ba ca biir ndab la i tamit mën nga koo dabaatal wax ko fu mu la fekk mm-hmm. moo tax ma dabaatal ko maa ngi jéggalu waa ah, eh, xam naa baax rek moo tax ngay jéggul ndax xam nañ ci ak taalibi rek ngay dox boo ko waxul ci kaw sax ñu dégg ko ci xool bi moom tudd nga ko ci Hmm. kon boog ñu jàpp ci bind bi rek hmm. ni donte jikko yi Jabrail ñëw na yëkkati leen hmm. wante daal képp koo xam ne lewet nga ba pare def euh, euh, am détermination comme si moom Seylaaj Malick si bi mu waxe woon ni ah euh, moom daal dañu ne ñeenti ñu ñoo fi gënoon wante dinaa rang taxaw seen wet kon daal ñu gën a takku rek te gën am détermination tey ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ni ko waxee rek. Mm-hmm. ni am na ñett yoo xam ne buñ ci taxawee yàlla mën ñu dimbali. defe naa mm-hmm. latif nga wax lat istixfaar nga wax ak banati. ak salaatul fatih. salaatul fatih ak ak ak istixfaar salaatul fatih ak latif. ñu sax ci yooyu incha allahu taala. loolu la waxoon waaw. waaw ñooñu nga wax tamit si rajo Mari def nii. waaw eh, dañu dañu wax ni gannaaw yonent bi. ñeenti xulafaaw yi ñoo fi gën Abu Bakar Omar Ousmane Ali ñu ne ko waaw mu ne bëgg naa bu ëllëgee. fu ñu teg mhm. seen tànk ma juróomeel leen parce que aw sant mayu leen ko juddu mayu leen ko yitte rek moo leen ko may waaw. kon lu muy def sëriñam bi. ah sëriñ bi kat nee na nee na danoo bokk atelier waaye bu may roy maamam laay roy. wallaay ndeysaan. Rajo Malick nee na Cheikh Tidiane Chérif damaa bokk ak moom atelier. waaw waaye bu roy jotee maamam laay laay kenn royloowu ma kenn roy ko waaw loolu la wax de xam nga Seydi Hadji Malick cheikh hmm? du du du dafa am fu mu bëgg a dem gis hmm? cheikh nekk benn benn pilote buy dawal avion boo xam ne nii du paan hmm? mu tarixa bi waaw Seydi Hadji Malick ne avion bee day am na sécurité naa ca dugg pilote bee koy dawali tamit am na am na expérience waaw wóolu naa mu dawalal ma xam nga kon kon dafa kon kon dafa am fu mu jëm. Hmm. waaye avion ba taxu koo jóg Cheikh taxu koo jóg dafa bëggoon dugg ci avion bi Cheikh conduiral ko ko. yóbbu ko fa mu bëgg loolu ko booleeg Cheikh moo tax mu ni. waaw dama bokk atelier maa ngi moom may roy maa nga hmm. kon moom la Cheikh Ahmed Tidiane fi Al Maktoum borom xam-xam bu mag ba di wax naan tarixa hmm. mooy fi xam ne les athlètes de la religion foofu lañ leen di former ci tarixa bi. noonu waaw noonu la demee nag. alhamdulillah wow, wow, non la demé wow tabarakallahu ah kon mbokk yi cheikh mu mag ma ñun al fatimi waxon na ni asman bu ni yëkkat sol sa loxo lal ko bala muy wat ndax xamoo ndax dina waccat wala ndax muy waccat sax dina sang baa ngi cheikh masilakan question yi yu ngeen eh, am bu ngeen ko jaarale fii ci chatroom bi ci mbokk mhm. Pape Diagne dina leen ko dugalal mhm. ngeen eh, profité ci dugal seeni question ak seeni ziar mhm. ubbil nañ leen floor bi dañ Pape Pape Diagne Pape jërëjëf macha allah ñu ngi am ci waxtaan bu am solo boobu oustaz Massokhna Kane def ko léegi mm-hmm. euh, dañu xaw a jox sa jëmm Serigne Cheikh ñu ngi ñu am mbégte lool ci waxtaan bu ñaar solo. waaw. comme ni ko mbokk yi comme ni ko Hadj Pape waxee rek euh, ñu ngi ubbi line bi ko xam ne am nga looy laaj ci waxtaan bi wala leneen loo xam ne dafa bokk ci bëgg laaj rek nga ñëw euh, yëkkati loxo jàllale rek nga laaj ko oustaz masala kan. yang eh, mendukung. Uh, sëñ Pape am na benn bu bu tabal benn benn laaj. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Eh, sëñ Pape eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu ñu ziar ko. waaye ñoo ngi nuyu euh, oustaz euh, Massil euh, Kane di koy di kontaan ci moom bu baax a baax ci waxtaan bi ak ni mu ko andee di ko ziar bu baax wax dëgg yàlla. man xam naa laaj bi rek si moom ni mu daanele léegi ci wàllu roy si yonent bi comme ni ko yàlla subhaanahu wa taala jàngale. maam Maodo leeral ko ba nit ñi ba ñu gëlëm si biir ay alquran yi. léegi euh, question bi mooy e euh, Massyla nan la ñuy royee si yonent bi parce que da nga gis jamono dañuy wax ne jàngale ba ca gën a gaaw mooy télévision euh, wa waaye nag waxil la pour ñuy déglu buñ ne télévision maanaam yow ki ngay roy fekk nga gis ko ngeen mbokk jamono léegi nag may laaj roy si yonent bi nuñ ko mën a defee ak jamono bi ñu toll ak kilifa yi ñu am ndax si ñoom lañu war a xoole pour jot si yonent bi wala boog dañu war a tëb kilifa yi dem rey si yonent bi ndax dafa bari si jamono nit ñoo xam ne dañuy ñëw ne la ah lii day yonent bi daa bu ko defee nii wala nii nii te ñoom ña lay wax ñoom ñëpp ah, du kenn koo xam ne fekk na jamono yonent bi ñi si bëri dañ leen nettali ki leen nettali dañ ko nettali ki ko nettali dañ ko nettali boo toppee silsila ba si yonent bi sallallahu alayhi wa te ñun ñi nga xamee ne am ay kilifa ñu yaakaar ñooñu am na fu ñu tegu fu wér foo xam ne bu ñu leen royee danañu mën a roy si yonent bi léeg-léeg nag nit ñi xaw ko dégg foog na dañuy wax ne rek yow si sa bopp yow yaa war a xool wala nga dem ñu ne yonent bi nii la daan def yow nga jublu ci loolu te am na ku la ko gën a dégg mu ngi koy jëfe dëkkoo ko kooku boo xoolee si moom léegi may laaj kooku yo yooyu yéen ñoo lañ ko war a jaare oustaz asalaamaaleykum wa rahmatulah wa Eh, eh, mën naa wax oustaz. waaw bisimilah bisimilah bisimilah. waaw eh, xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee Cheikh Tidiane Chérif mosoon nañ ko laaj ni ko ndax des na la sosal ci gi jamono mu ni waaw. ñu ne ko solution nag mu ida samictum minni shay'an fazinuhu bi miisaan sharci fa in waafaqa fa xuduuhu wa in xaalaf fatrukuhu daf ni lépp loo xam ne sosal nañ ma ko ngeen natt ko ci alquran ak sunna mu dëppoo jëfe leen ko ci man la jóge bu wuutee ngeen xam ni jógewul ci man xam nga mag ñi mag mi ñuy roy mag mi teg tànkam fi ko yonent bi tegoon te gën laa jege nga roy ci moom mooy nga roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que wala mhm. si dañuy wax ni poste courant bi lu mu la jege jege ci poto lampe yi nga mën a xëcc te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xàmmeewul euh, bidaa xasana donte am na ciy dal sunu kaw dinu parce que am na ñoo xam ne loo wax ñu ne bidaa la te bidaa xasana dafa am ak bidaa sayi'a biddaa bi nga xam ne dafay dafay dafay defar diine dafay gën a taaralaat diine dafay yokk diine biddaa boobu l'islam du ko dàq mais biddaa bi nga xam ne dafay yàq dafay réeral nit boobu la lislaam rëbb xam nga yonent bi boo nee lu mu def rek laay def moom rek laay roy ci lépp kon boo agsee ci boo agsee ci topp ñaari waajur ci koo koy roy yonent bi gisul ñaari waajuram mm-hmm. bu dee lépp ci yonent bi laa koy roy boo agsee ci topp sa ñaari waajur nooy topp sa ñaari waajur parce que yonent bi gisu leen ba leen bay jàngale nu ñu leen di toppee xëy na orientation yi mu def ak wax ji waaye bu dee da nga naan nu mu ko def man noonu laa ko defee te moom gisul ñaari waajuram da ngay gàtt mm-hmm. bi ci des mooy ñiy wax bidaa alquran jëmmi alquran sax bidaa bidaa am na ci ndax mm-hmm. alquran yàlla waxul feneen nañ ko bind dañ ko jàng rek lañu wax bind gi gannaaw yonent bi lañ ko def gannaaw yonent bi la abou bakar saddiq la omar ibn xattaab ñëw ci abou bakar saddiq ni ko xare yaa ngi bari te ñiy dee bari na te alxuraan bi ñi ko mokkal bokkuñu ñii dañuy mokkal lii ñuy mokkal lii xare yi ni mu tàkkar naa nit ñuy dee bu ñu moytuwul dina am ku ci dee dee yaale mokkaleef goo xam ne yow rek yaa ko mokkal kon nañ leen dajalee ñoom ñëpp ñu ku ne indi li nga mokkal ñu bind ko Abu Bakar ni ko man de ñi mu maa def lu fi yonent bi bàyyi woon mhm. Omar mayu ko jàmm ba ñu ànd dem ci Zeyd ibn Saabit moo nekkoon secrétaire particulier ba yonent bi moo nekkoon kaatibul wahyi Mhm. ba ñu demee wax ak Seydou Seydou def leen ni man li ngeen ma sant dandal montagne yi ma ko gënal moo ma gën a yomb mooy def lu yonent bi bàyyiwul maaye ñu ko jàmm ba Seydou d'accord ñu dajale mboolem saaba yi ñi mokkaloon ku ne indi li nga mokkal ñu bind ko ba ñu ko bindee ba noppi la Seydou ni bu ñu ko bindul woon ba am parce que am na ci aaya boo xam ne kenn rek ko mokkaloon ci saaba yi muy aaya bi mujj ci suratu tawbati laqad jaakum rasulun min anfusikum mhm. xusaymatum nu saabit képp moo ko mokkaloon mu ne kon bu ñu ko bindul woon ba mu dee ci xare boobu aay day sànko kon bind gi am na solo xanaa kon bind gi bu dee biddaa it biddaa bu am solo la mhm. bind gi dañu ko bindoon mais maasuñu ko tombuñu ko dañu ko bàyyi woon noonu ga xam ne raxiimi ak rajiimi kenn mënu koo xamee ndax kenn tomb ko kenn maasu ko mhm. te la ñu daje ci penc mi nañ ci waxtaan parce que lii il faut am solution ndax eh, eh, bismillahi rahmaani rahiim gi ak auzu billahi mina sheytaani rajim bu ñu ko xàmmeewul di nga gis ku ne aoudu billahi min asheytaani rahim wala mu ne bismillahi rahmaani rajiim te nag ku ñuy wax xajjaaj ibnu yuusuf ñu nañ ko tomb ñu tomb ko tomb ko ci gàttal ba ñu tombee ba pare dem ba yàgg ñu dellu si waat ne ah am na lu des de jigi léeg-léeg nga fekk mu nekk ji waaye yenn saay mu nekk ja wala ju ku ñuy wax abul aswad ad ali moo ne am naa ci solution ñu ne ban mun nañ ko maas kon bind alxuraan ak tomb ko ak maas ko yëpp ginnaaw yonent bi la bidaa daala waaye bi la boo xam ne boo amul woon li yàqu ci diine dina bari kon ñiy wax naan nangam yonent bi bàyyiwu ko fa yonent bi laay roy mais yonent bi am nañu ko représenté ñoo xam ne fa mu tegoon seen tànk lañu ko teg mhm. nga ñooñu nga topp leen te itamit day yomb day yomba lijjanti parce que sëriñ boo ci toppoon tey di ko déglu gis lu wuuteeg am ci ay jëfam mais am nga droit taxaw waaye doo gis benn faute grammaticale ci seen bind doo gis benn atte bu ñu atte dëppwul ak diine xanaa kay xanaa xol bu wane wane gannaaw la waaye waaye waaye du leneen kon roy yonent bi eh, def tëm ni ñett ci moom roy ko duñ la ko tere ndax sëriñ Cheikh Tidiane si daf daan wax ne na ngeen moytu na xàmmee am noon ak soppe bu ak séegul ndax ñoo ni Mm-hmm. moo tax ki gëm tarixa jaar ci Serigne Touba wala ci Sidaaji Malik wala Cheikh Cheikh Sadou wala Cheikh El Hadj eh, du dal ci kaw ki ko gëmul ndax dañuy xam ni mën naa am soppi bu ak seegul la mm-hmm. waaye nag ñi jaar ci yoon yooyu tamit bu leen kéefarloo ndax même Serigne Touba sax nee na wala tuaddu man man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allahu mm-hmm. képp koo xam ne wax laa ilaha illa yàlla ñor ko bu leen ko kéefarloo bu leen ko noonu kon ñi nga xam ne dañu la naan jaareel nii ma jaare boo fi jaarewul ñu kéefar loola yonent bi mën nga ko roy waaye mënoo koo matale lu dul ñi nga xam ne ñoo ko roy ba àgg ci yenn qualification yi nga topp seen ginnaaw Sëñ Tuubaa nag nee na sëriñ moo mënul ñàkk nee na man lam yakun lu cheikhan murshida fa cheikhu mhm. cheytaanu xaysu xasada nee na man lam yakun lu cheikhan murshida képp koo xam ne amuloo sëriñ bu lay jubal fa cheikhu cheytaanu xaysu xasada am na ñoo xam ne dañ koy firee nii kon seytaane mooy sab sëriñ déedéet daf ni kaw ke nga topp ànd moom te jubalu la mooy seytaane kooke nga àndal ndax ñàkkul am nga ko àndal bu fekkee du la jubal jàngal la teg la ci yoon koo kooku mooy seytaane mu ni man lam yakun lahu seyxan mursida ku amul sëriñ bu lay jubal di la gindi fa seyxuhu te sëriñ boobu nga àndal seytaanu mooy seytaane xesu xasada fu mën a jub hmm. kon tabarakallahu eh, ci ci ci ci gàttal loolu laa la ci mën a mën a indil ndax dafa gudd

boobu fekk Sénégal lii xel ni rek maanaam am na sax temps yi livre boo xam ni bindoon nañ ko bu yàgg fan yi si gannaaw une ay coow yu rëy Sénégal mhm. mu am moon nag euh, jamono tamit ñoom ñoomoon doole lool di wër ci di dafay daawa wër di woote ñëw ci université de Dakar am fa juma mhm. dafa jàngale xam ne dañuy indi xab doog ay yenn façon julli yeeg yu daal mhm. ma ñëw Tiwaawan fekk boobu ci jàkk Serigne Babacar si radiallahu taala anhu am na ku ñu daan wax Baye Diop Diop Sikkim. waaw dafay jiite ma ñu ne ko man laa góor gi dama gis ni léeg-léeg dafa am ay wax yoo xam ne dafay mel ni maam Maodo daf ko wax. man dafay xaw a wuute ak waxu yonent bi rek góor gi ni ma toogal si suuf. daal di toog ni ma la kaay ma xam leen tey. bu sëriñ kër si waxee xelaaj mhm. Malick si wax mhm. ci sa gis-gis yow mu mel ne mu wuute mhm. toppal waxu sëriñ Babacar si te bàyyi waxi xelaaj Malick tax mu moo gën a dégg fuuf dëgg la mu ne waxee Cheikh wax ci bët yow ak sa dégg-dégg mel dafa wuute bàyyil waxi Cheikh ci toppi waxi Maodo Maodo la gën a dégg Cheikh fuuf mun na kasaalika naka noonu diggante cheikh ak yonent bi uh-huh. kon boog yi yëpp xew nii tey uh, nit ñi di wax wala ñenn ñi wax mel ni dañuy xaw a weddi ahlu sunna uh-huh. loolu Maam Maodo moom bu yàgg ñëwoon na ci kifaayatu uh-huh. raaxi bi ne téere yëpp ñëwoon na moom ci boppam def autocritique am nu mu critiqué Euh, kii euh, yenn échec yi nga xam ni diine def na ko ak yenn échec yi nga xam ni euh, ñi wootewu ci diine ak ñi wootewu ci def nañ ko comme bi ñu cité léegi rek ñu dem ni waa ni ni il faut nga am foofar boo amul foofar dañ far dañ di seen bokk jullit mm-hmm. wante li ñu xaw a jaaxal mooy ki xam ne daara moo ko yar mm-hmm. mag ñee yar ak ki nga xam ne tubaab beeko ko yar dafay am dafay am wuute mais xanaa foofu euh, donte ki tubaab bi yar dina am xam-xam ba defaree la avion wala moom xam-xam ba defaree la frigidaire wala leneen mais xanaa kersa ak warmaal mag dafay manqué ci enseignement boobu dafa mel ni jikko yonent bi dafay manqué foofu. Mm-hmm. Mm-hmm. dafa mel ni am na crise moom foofu tamit ci jàng bi. Mm-hmm. waaw loolu Serigne Cheikh Tidiane Sy dafa wax ni. waaw bu la jàngalee rek yem ca di nga bari coow waaye doo xam fooy taxaw. waaye bu ñu la nàmpalee ci weenu yonent bi loo wax mu barke. dégguma ko. daf ne bu ñu la jàngalee rek yem ca. waaw nga bari coow. di lool waaye doo xam koy taxaw. waaye bu ñu la nàmpalee ci wenn yonent bi loo wax mu barkeel nàmpal ci wenn yonent bi mooy mag yar la. Mhm. su dee ci tarixa nga nekk ñaari batt mhm. benn bi benn ween bi salaatul fatih moo ci bale benn bi jawharatul kamal moo ciy bale bu ñu la ci nàmpalee ruuxul idraak day dund ci yow téere yi yaa koy gën a dégg ñi ko bind yasal waaw te sëriñ Cheikh nee na ruuxul idraat ku mu dundul ci yow boo demee ci téere yi doo ko dégg su ko defee itam mhm. ñooñu Seydi Hadji Malick bi muy bind Kifaayatul Raaxibiin mhm. dafa bind loolu pare delluwaat bind Ifhaamul Munkiril jaan yi ñaari téere yi la bind loolu ndax kifaaya bi mu koy bind booba am na ay nit Seydi Hadji Malick yor ndono li ko Cheikh jox di ko doxal am na ñu jóg di di di tuddoo lu mel ni li mu yor ba mu commencé am ay déviation ci la Seydi Hadji Malick jël kifaaya kifaaya nekk téere bu bu tàng boo xam ne nii daanaka rek day mel ni lu dul sariya rek da koy baddi sànni noonu la téere bi xaw a ba dem ba mujj sax ñuy duute ndax gëmati na tarixa mu ko gëme woon mu daal di bind nag ifhaamul munkiril jaani yi pour défendre tarixa bi nga xam ne moom moo nekk ndax da mm-hmm. mais ñooñu bëri naa ñoom bu yàgg te doomam yi ñu fi bàyyi bëri naa ñoom bu yàgg ndax hmm. amoo amoon na eh, jamono sëñ Babacar sëñ Babacar buum na leen hmm. buum na leen ndax sëñ Cheikh na am na ci koo xam ni eh, bi mu bi mu ñëwee fii di weddi atal tarixa yi ba ci bàmmeelu Sidaaji Malick bi mu gis ci biir eh, mosele bi hmm. mu dañuy ay baat ni kufru la Sidaaji ne sëriñ Cheikh nee na sëñ Babacar nee na man musuma gis nitu yàlla bu maa ngi jégalu wax bi nee na làmmiñ bi rafetul du ko sëñ Babacar yàq ba àgg mhm. ci ni ko ay xafaafis ngeen xafaafis xam nga xaf xufaas jam mooy mooy njugub njugub waaw jamono bi mooy xafaafis mooy ay njugub mu ne ko sëñ Babacar ne leen ay njugub ngeen mhm. njugub garab ga muy dal ku fa yendu mu tuur la sowe waaye mhm. yàlla baax ci moom yàlla daa fexe ba munta taxaw day lang ay tànkam lay wékk bopp bi féete suuf lu mu nar a suuf tuur nit sotti ko ca ba doyal Mm-hmm. mu ne noonu la leen sëñ Babacar noonu la leen sëñ Babacar ne ay xafaas ci ngeen nee na dafa njëkk ba ko ñii naan ma nga Gàmbi ñii naan ma nga aéroport noonu la demee ku fi mas a ñëw taxawee tànki gaa yi taxaw sëñ Babacar buub na la ci jamono. si daa ji bind na ci waaye sëñ Babacar mu naan bu dàq leen ñu dem ca àll ba mm-hmm. kon euh, Alxaaji Abdul Aziz wax na ci man ñi mm-hmm. fi nekkoon parce que téere bii ñuy coow Sénégal téere bi yàgg na fi waaw xale yu ndaw yi nga xam ne nii dañoo dem ba mujj nag dañ nañu réer ba pare te yëf yi metti woon na seen bàyyi te loo lebal sa ndijaay sab jarbaat fay la ko. man nga lebal sa ndijaay sab la ko. Mm-hmm. loo lebal seen ndijaay sab jarbaat fay la ko comme mag ñi lañu ñu tàngalul seen xol jër ba ñu xaalu ci. seen doom yi nag ñoom ñooy faj mer moomu def leen faas. te lay yi ñuy indi léegi lay yi wóorul tijaan yi nag ñoo gën a am pro ñoo gën a sonn ci mbir mi ndax bi ñuy bind téere bi mbooleem turux suufee yi. Mm-hmm. dal nañ ci kilifa yi ko yore yi yëpp. benn mhm. kilifa rek dañ dalu ci kawam Sénégal te loolu xam na ñëpp xam nañ li tax kenn du dal seen kaw. Mhm. waaw mais kilifa yi ci des yëpp dut nañ leen baaraam. Mhm. ci ci mbind mi ci mbind mi bi ñu demee ba wax ko laayil téere bi jot. ki ko bind dafa wax ni dafa tudd benn kilifa ni moom sunna la doon doxal. te boole wu ci yeneen sëriñ si ñoom it sunna lañ doon doxal. jukki ki mujj jukki kooku. Mhm. Juki gi mu ko jukki du caagi nag sax war ma ju doy sëkk mhm. waaye ragal ndax ñoom dañuy sàmm dañuy sàmm seenu yoon bu baax a baax a baax dañu koy protéger dañ koy sàmm lu ci waay di wax na ko xam mhm. kon tey bu bu déegee bu bu ko bu ko tuddul ci téere ba pare dem ba ci biir lu muy wax def discours mu sempi ko ci li ma waxoon nitu yàlla yëpp mu sempi ci Serigne Touba radiallahu taala anhu daan ni sunna ak alquran ci la tegoon tànkam Mm-hmm. su wëlbati woon nag daal ne ak mbooleem ñi nga xam ne nii ñoo bokk moom ndono wala ak mbooleem ñi nga xam ne tudd naa leen ci téere bi mais yàlla moom moo xam kan mooy premier ak kan mooy deuxième loolu yàlla moo koy atte waaye terewul rek buy setal na mm-hmm. mu taqal ñëpp loola la muy tekki rek mooy di wax loo xam ne ñeme woo ko ndax ku wax kuy wax loo ñeme doo ci sedd kenn da ngay insister rek ca la nga waxoon mm-hmm. man nag ci modération ak bëgg jàmm dama noonu waaw eh, bu ñëwoon daal su souligné ay ay mbir ci téere bi nii lii de bu deb doon ne tey du ma ko bind waaw daal koy daal koy daal koy jéggulu mhm. kooku mën nañ ko toléré mhm. su ko defee bi ci des mooy ñi nga xam ne dañoo aju ci moom même moom bu dee nit ku yaru te dal te teey ñi nga mhm. xam ne dañu koy tuddoo tey saaga saaga yu ñaaw mu jëm ci mag ñi mu woo leen noppiloo leen gis nga bu waxoon loolu baat am na nangami phrase ci biir téere bi su bu doon tey du ma ko bind mu wax ko suruñu ko dellu mbooloo mi nga xam ne dooma bootu ci ginnaawam di wax ay wax yu ñaaw mu noppi loolee su mhm. boobaa choc bi dina gën a mën a sedd tuuti ndax réew ñëpp noo ko bokk te kenn yéenewul yomal xiyaam benn sénégalais nga seen ko nii kon ku jëme sawara kenn wul ko yéene mhm. kon ku fi dëkk lu mu nekk lu nekk bul ko bàyyi ba mu dugg ba mu mu dugg ci kàmb nga di ko mhm. ba danga ko war a danga ko war a repêché danga ko ci war a génne moo tax même ki juum dañ ko war a topp ba mu nangu njuumteem ñu raxas ko delloosiwaat ko ci société bi ñu ànd ànd bu rafet ndax loolu mooy li bayit bi Sëriñ Tuuba doon junj ni wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha bu leen noonu kuy génn ci làmmiñam laa ilaha illallah yàlla ñor ko leen ko noonu ki nag boo nee duma ko noonu te bés bu nekk la nga sa pas ko touché da ngay mujj sa xol day jeex kon euh, loolu mooy li ci nekk euh, ci ci téere boobu noonu ak coow loolu nga xam ne moo am am Sénégal ñi ca ëpp coow nag dafa waxoon ni yéen a ngi jëm ci jamono boo xam ne ñay waar nit ñi duñu fer ijji ña fer ijji far noppi yéen a ngi jëm ci jamono boo xam ne ñay waar nit ña duñu fer ijji ña fer ijji far noppi tey boo demee ñi dar ñi doon ko ya ak rajo ya ak jàkka ya daanaka rek xam xamme jumlatul fi'liya ak jumlatul ismiya mm-hmm. ñu ca baree bari boo leen dégloo seen discours dañu naan sallallahu alayhi wa sallim wala ñu ni allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam ba léegi xàmme wuñu ni sallama moo ciy topp salli sallim moo ci topp boo nee allahumma salli ca fin ba sallim ngay wax boo nee sallallahu ca fin ba sallama ngay wax sallallahu alayhi wa صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم غير الله وسلم تاي بولين دغلو نيوم نيوني بني ديف ديسكور با اكسي فوفو تي خامني با ليغي مات نيو ما امنا لو ديس خامنا استاذ موي موي ليغا واخ رك بو ميشيام سال مكتوم واخ نكو ني بو جانغي ا تيري ييب Hmm. ci àdduna hmm. te nampaluñ la ci weeru yonent ci weenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jànguluñ la tedd nga yi da ngay bëri da ngay rek hmm. wante doo bari xamxam xam euh, xam naa benn euh, misaal biñ ci joxe rek mooy benn dëj bu ñu àndoon dem keroog man euh, keroog demoon naa sëñ Abdourahmane Diagne Pape Diagne mi dugg sànq noonu demoon na ci dëj bi Oussa Assane Thianoum demoon na ci dëj bi suñu mbokk Abdou Mbow demoon na ay Cheikh Del mi ci Philadelphie ñëw na ci dëj bi am na mbokk yu jóge woon sax ba Detroit Michigan. ñëw ci dëj bi bi ñu ñëwee di jullee benn mbokk. imaam bañ fa fekk xam naa moom it jàng na am na am na xam-xam nii wante waaraate ba mu fa waaraate dafa mujj sax. xaw commencé di yëngal xolu ña fa nekk mhm. parce que ki indi néewam di ko ci jàkka ji néew bi di ko ñaanal du ñëw nga di ko jaaj naa ko da ngay def ci nii nangam nangam pourquoi ngay yóbbu néew Sénégal fi nga war loolu feneen lañ feneen lañ koy waxee kii tëdd ba pare kii faatu mhm. tëdd ba pare mhm. dëgg-dëgg kooku doy na sëkk ci waaraat <coughs> boo bëggee delluñ ci yàlla rek te kii tëdd di dellu suñu kii moom doy na loolu daal moom dafa mel ni doy na sëkk kon xam naa daal ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala baax bi mu dimbali ñu gën leeral jàngale mag yi gën a leeral jàngale Cheikh Alhaji Malick Sy radiyallahu taala anhu ak njabootam ci àdduna bi yëpp ndax àdduna mooy gën a baax àdduna mooy gën a leer comme ni nga ko waxee rek nii ko sang bi Cheikh Ahmed Sy di defee fii ci États-Unis mhm. euh, wax ko sànq ci sa njël benn waxtaan ni Sénégal bu dafa nekk euh, ñoom mokk na mokk nañu rumbux waaw mhm. ah, nag moom ba mokk wan wan ko yomb de waaye léy <laughs> waaw waaw waaw mi ngi xam naa li amoon ci waxtu dafa mel ni juróom-ñaari simili oustaz Masila moo ci des euh, mhm. sëñ Pape Diagne dama bëggoon rek su amul mbokk bu am lu mu bëggoon a leerlu bu am na ku bëgg a ñu may ko kàddu bu loolu amul euh, pap euh, boo mënee indi benn breaking news lu jëm ci wàllu convention bi nga fàttali convention bi kañ la ak fan la fan yooyu nga xam ne moom lañ jagalee sang sang bi nga xamante ne Al Fatimi journée Cheikh yooyu kañ la ak fan la. sëñ eh, jërëjëf macha allah ci waxtaan bu am solo bi hmm. comme ni nga ko waxee rek fàttali eh, comme niñ koy defee saa su ne di nag eh, nouvelle la xew-xew bi nga xam ne mooy ñëw muy journée Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bi nga xam ne niñ koy ameel fii ci Tivaouane Washington hmm. at bu ne ñu koy def ñaari at yi at bi ñu génn nag defuñu ko ndax pandémie bi ñu def ko fii ci virtuel bi comme ni ñu toogee nii dajale àdduna bi yëpp dajale ñëpp ñu nekk ci virtuel bi ñuy def euh, convention bi ren nag comme niñ ko xamee pandémie bi mi ngi fi ba léegi naam mi ngi wàññeeku waaye bi ñu dajee euh, mercredi wednesday comme ni waa ITFA di def yëpp every wednesday ñu dajee fii ci zoom bi di waxtaan li nga xam ne moom moo jëm ci fondation bi ak ni koy doxalee li fa jot a rot mooy ni ne ren incha allah dinañu defaat convention waaye mhm. virtuel lay doon maanaam nii lay amee ci zoom bi euh, Thursday di jeudi euh, vingt trois décembre euh, vendredi vingt quatre décembre ak samedi vingt cinq décembre incha allah ñetti fan yooyu la jàpp neuf heures muy nine ba midnight ba minuit mhm. bés bu nekk dinañu toog di def waxtaanu convention bi mu nekk benn programme bu riche boo xam ne macha allah naam dañ daan daje di ko def euh, ren dañ koy def euh, virtuel soo déggee virtuel nag high spa mooy li ñu nekk di def nii. Euh, ci zoom bi di daje di di di waxtaan xam ne àjjuma bu jot ñu defee nii ci ci ci bi zoom bi. def ko mhm. xadara indi borom xam-xam yu mel nii comme oustaz masala kan mu ñuy waxtaanal suñu diine dinu fàttali lu bari wala mhm. comme ni ñu def démb muy Thursday indi euh, benn docteur Dieye ku mel ni docteur Dieye mu ñuy waxtaanal ci si euh, euh, suñu nekkin fii ci Amérique. waaw pour yomb. donc li ñu mën a jàpp daal mooy convention bi dina am waaye toujours si Zoom bi lay def comme daaw. ñetti fan lañ jël borom xam-xam yi dinañ jóge fu nekk ci àdduna lu ci ëpp Sénégal. nekk foofu mhm. di jox ñun ci heure bi nii ñuy waxtaan def convention. indi programme bu am solo bu riche incha allah ñu ngi koy pare euh, dinañ si dellu si waat ci yeneen émission yi ñëw euh, di ko di fàttali euh, keroog ñuy defar programme bi teg ko waaye liñ ci mën a mhm. jàpp daal mooy incha allah dina am liñ ci daan soxla yëpp dinañ ko dajale teg ko ba mbir mi mën a soppi incha allah donc ñu jàpp ne daal convention 2021 muy 2021 décembre la 23 muy muy Thursday Uh, twenty fourth muy uh, Friday twenty fifth muy Saturday ñetti fan yooyu day am incha allah dinañ ci ñëwaat maintenant ñun ñëpp mhm. jàpp daal dina am incha allah te nii lay amee ci kon ci Zoom bi muy mhm. virtuel ñu ñu préparé ko Hajj Pape. waaw alhamdulilah kon boog ñu jàpp uh, weekend Christmas. Mhm. incha allahu taala ci mois de ci la ñuy def journée suñu sang bi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Euh, ci Zoom bi lañ koy defee jarul réservation d'hôtel jarul jënd billet préparer say kër gën a leeraatal say lamp euh, tuur sa ay parfum xam ni. jar na sañse de. waaw jar guddi yooyu sang bi moo ko moom. ñu del waaw ñu delluwaat tamit di leen ndokkeel di ndokkeel sang bi Cheikh Seydi Aboubacar si bu suñu maam Cheikh Mouhamadul Mansour. tey jii bisu àjjuma ji ubbiwaat na jumaa yi ak jàkka yi ak zawiya ak activités yi nga xam ne yëpp euh, waa këram ñoo ngi ko daan amal tey nit ñi gis leen nit ñi kontaane daje Tiwaawan ci jumaa yi ak jumaa yi jokkoon yëpp ci kër gi yëpp ubbi nañu tey ci ndigalu xalifa bi ñoo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala moom mi may mbas mi dellu gannaaw jàmm dellu siwaat may xalifa bi mu joxe ndigal yu am solo yooyu comme ni mu koy defee toujours ñu koy ñaanal gudd fan ak wér yàlla ko yàlla mottalil mottalil ko tamit jumaa yi suñu borom ji nga xam ne fa jaaree ci loxo yi maam El Hadj Malick yàlla na ko àggale ak jàmm salaam ubbi ko ci jàmm salaam ñu ànd ak moom julli ci ci jàmm ak salaam yàlla suñu borom nangul ñu kon sëñ Pape ma bàyyi la nga jox ko mu joxe kàddu yu mujj waaw ah, oustaz ñi ngi am mbégte wax dëgg yàlla macha allah waxtaan bi amoon na solo trop trop trop euh, defe naa ne liñ ci mën a ñaan rek mooy nañu yàlla may dégg-dégg ñu mun ci jëlee lu bëri incha allah xanaa ñu bañ a gudd rek bàyyi la nga joxe kàddu yi nga xam ne moom ngay tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo ndax yow ci ñun nga bokk te wax nga ko sànq sëñ mooy sa mooy sa sëriñ. Mm-hmm. donc lay euh, yaatal ci kër gi. Euh, bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi oustaz Masal bisimilah. waaw euh, jërëjëf euh, Seydi ñu leen di sant bu baax kàddu yi moom. Mhm. kàddu yi rek leen sant leen rek la. ndax tabarakallahu suñ Pape Diagne. waaw yiw gi ngeen yiw rek ak baax gi ngeen baax. doy na tem man jàpp naa ne bu ngeen exposé woon ci écran bi rek toog noonu ne doj ñu leen di xool rek jàng ci yéen yar. jërëjëf waaw sëriñ Cheikh daana wax ne alxaaji Abdul Aziz Si dafa hmm. yaroo yaru ba boo àggee ci moom da ngay am kersa ndax doo ko mënoo mënoo fexe ba gën ko yaru waaye loolu moo feeñ ci seen comportement yéen yàlla defal leen jàmm mbas mi tamit yéen yàlla teggil ñu ko yu baree bari ah mbas mee ko waral te mbas mi nag ah yàlla moo koy tegee te it nu hmm. xam nu nu nu bàyyi xel ni lépp nun la lépp nun la parce que damay faral di wax ni masque yii nuy takk oxygène bi ñuy noyyi ba mën a dund oxygène boobu moom la fas yi noyyi ak xar yeeg bëy yi te lu tax ñoom takkuñu ay masque nun nit ñi ñuy takk ay masque kon xam nga ne yàlla xam nañu ko tooñ mm-hmm. xam nañu ko tooñ bu ko defee nag ñu xam ne loolu la ñu dellu ci moom tabaarakallaahu su ko defee di sant sëriñ bi bu baax a baax di fetli suñu cofeel ak moom ak suñu tëbbu ci moom ak njabootam yépp di ko xamal ni nun ñi nga xam ne dañu nekk Sénégal nekk fii xam na la fa xew xam nañu la xew ci moom xam nañu li muy daj xam na nañu li mu réussir waaw dëgg naa dafa am benn waaju seen ñaar ñu jaamaarloo di préparer pour xeex mu daldi ne ñaar ñee di bëgg a xeex day bu ñu téyewul boroom bu mu weex mi moo man fuuf dina dóor waaju ba gaañ ko mhm. ñu ne ko yow noo ko mën a xamante ñoom ñaar xeexaguñu mu ni dama xeex ñoom ñaar ñëpp léegi ñoom waaw waaw léegi <laughs> <laughs> looloo ko may bëgg expérience waaye man mi ne Sénégal. Mhm. nekk fa ak sang ya. ñëw fii di ko fi fekk gis li muy liggéey. man xam nga wan tabaarakallaahu mhm. ah, di sant nag eh, njabootam gi nekk North Carolina ñoom Adja Ndiaye ñooñu eh, tabaarakallaahu nga xam ne ñooy ak ñoom eh, Modou ak ñoom Moustapha ñooñu nga xam ne ñoo nekk fële daal waaw ñoom ñëpp rek parce que mënu ma lim. Mhm. ak ñi nekk New York waaw surtout waa Zawiya maa ngi jégalu war naa leen nuyu ñoom ñëpp waaye xam nga temps bi moo xat maam Jéey ak maam yi fi nekk yëpp. maam mm-hmm. Ndongo Sarr maam Abdoulaye Diop maam bi ñëpp rek. Mm-hmm. ak taala eh, Baba mi nga xam ne moo yore vraiment liggéey boobu di boroom xam-xam bu effacé wu nag waaw El Hadj Baba Diaw Ndaw sama jawrin ndax bi ma ne cëpp fii nag wax dëgg yàlla sama saak moo ko moo ko gàddu woon nag. waaw damay wax naan mbuus mbuus mu bula bi ma defoon sama yére bi ma ñëwee New York mu ngi ci Ronaldo Babacar Ndaw kon tabaarakallaahu gannaaw bu ma sante ma dal ni samay njaatige muy ma Famati Seck ak ay rakam ak yaayam maa ngi sant soxna Safra Taal mi xam ni mooy sama sababu dugg Amérique waaw mm-hmm. loolu tamit mu yóbbaale nag ñu baree bari lim dafa wóorul waaw mm-hmm. waaw di sant ñëpp daal ci gàttal parce que soppe yëpp daal ci barke yonent bi yal defal leen jàmm macha allah amiin amiin Jadi, jadi, con Bob, booking, Boquín, Jorlen. jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo itfa rajo itfa ànd ak yéen ci programme yi yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dundu doomu aadama rajo itfa ànd ak yéen lépp luy askanu gambia wala mu soxal askanu senegal te nek ci bir Amérique ak liko wër di ngeen and ak radio ITFA ci programme yu am solo radio ITFA di radio askan wi leram ya jollina radio xol fo fa bawan radio ITFA dal dama ni jappal ma bi radio bul ko ba mukk radio ITFA radio askan wi عرفت عشقا فأتيت